الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين bokk jullit yi gannaaw ba ñu leen dénkee ragal yàlla dénk leen ngeen topp ay ndigalam ca roy ab yonentam sallallahu alayhi wa sallam sun xutba tey bi li ngi jëm ci tukki bi gën a rëy bu doomu aadama masa tukki ba yàlla wàccee sunu bay aadama ci suuf ba ila yawmi din tukki boo xam ne ni it njëriñ lam jur tukki musu koo jur ca tukki dootu ko jur ba ila yawmi din tukki boobu suñu borom yàlla jundi na ko ci téeréem bi ci ay place yu bari borom boobu moo bàkk boppam daldi ni moom day moo doxale ca guddi jaamam ba yonent yàlla muhammad jële ko fii di makka yóbbu ko fële ci baytul maqdis ca palestine loolu ci benn guddi mu daal di koy dox aller retour ca jamono jooje daanañ ko def ñaari weer suñu borom yàlla kawtiif yi nara am ci tukki boobee tax na mu màndargaal suñu yonent ni bi abdihi ci jaamam doonte ne boo delloo ci alquran heure bi wax ak moom day jëfandikoo al rasul wala nabi waaye fii abd la jëfandikoo li waral loolu mooy li ëpp ci doomu aadama yi suñu gisee seen moroomu aadama def xar baax dañ koy daal di génn ci jaam yi yóbbu ko ci darajey borom bi loolu amoon na ci diine yu jëkk ya ba diine di ci mujjoon mooy diine yi isa bnu maryam ah ba yàlla jaarale moom ci ay kawtiif waa bani israil dañ koo mujj jàpp def ko yàlla loolu dañuy gis tey lu bari suñu sëriñ yi tey suñu borom yàlla subhanahu wa taala bi mu yëkkatee seenu tur lu bari ca doomu aadama ya dañoo mujj daal di jël tur yooyee teg ko ci place yàlla waaye suñu borom mi ngi ñuy teel a xamal ni nit ki fu mu mën a yëgg ci daraja ak xiiwalu yàlla jaarale ci moom munta paase jaam moo tax mu ne subhaana alladi asra bi abdihi ca jaamam ba ñi ngi ko jële Makka yóbbu ko al aqsa ca Palestine borom xam-xami diine yi dëppoo it ci ne suñu borom yàlla yonent bi la jël ci jëmmam waaye nekkul ci ay nelaw jëmmam jëla jël yóbbu ko Palestine jëmmam jëla jël yéega ko ca fa gën a kawe ci kaw asamaani juróom-ñaar mbokku Anas ibn Malik mooy nekk ci li ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee ne benn guddi laa toog ci makka jibril alayhi salaam dikkal ma jibril bu ko daan dikkal ci melokaanu nit la koy dikkal loolu ci ñaari yoon yu mu ko gis ci naka yàlla bind dëggantaan nee na indil ma benn waruwaay boo xam ne moo sut mbaam tuuti yëngul ci fas nag nee na ñu war ko waaye nee na waruwaay bi su bëtam tege tànkam tege na fa kon kooku lam doon daw yàllaa ko xam ñu yëgg Palestine nee na Jibril sant ma may yeew ko gannaaw ba ñu dugg ci jàkka ji ma julli fa ñaari rakka Jibril ànd ak ànd ak man bi ñu ànd ak man ñu jëm kaw asamaan bi ñëwee ba asamaanu benneen Jibril fëgg bunt yi loolu it mu lay wan ne asamaan daa am ay bunt doonte ne bunt yooyu ñun xamuñu nu mu demee waaye suñu borom yàlla nee na yéeféer yi de bu ñu deeyee ba malaaka yëkkati seen ruux laa tufattahu lahum abwaabu sama kenn di leen ubbil buntaa samaan yi nee na bi ma fëggee malaaka yi ne ko kan la mën na leen man la jibril te it suñu borom dafa wutal ay malaaka ay malaakam ay tur comme ni mu ko wutale nit ak jinne jibril boobu mooy kilifa gi gën a màgg ci kilifa yu malaaka yi boo dem malaaka yépp jibril mooy seen chef moom la borom bi di wax ne mutain samma amin mboole ni malaaka or duru jibril la ñuy xaar ndax suñu borom li muy wax jibril la koy wax mu wax leen ko nee na ñu ne ma waaw koo àndal ma ne leen muhammad laa àndal malaaka yi ne ah kon yàlla yónni na ko ma ne waaw yàlla yónni na ko ñu ubbil ma bunte asamaan yi nee na bi ma ñëwee maa ngi fekk yàlla tere la ma indi sama bay aadama alayhi salaam mu daal di may sargal daal di may ñaanal barke gannaaw ba ma déparé fa la xewoon asamaanu benneel moo xew asamaanu ñaareel waaye foofee yonente bi ma ngi fa fekk isa bna mariam ak yaxya doomi zakariya ñu jóge fa dem asamaanu ñetteel yonente bi fekk fa yusuf alayhi salaam ak malaaka yëkk dëkke asamaanu ñe ñeenteel mu fekk fa idris ak malaaka yëkk dëkke asamaanu juróomeel mu fekk fa haarun ak malaaka ya nekk foofe asamaanu juróom benneel mu fekk fa Muusa alayhi salaam ak malaaka yi ko dëkke mu ne gannaaw ba jibril ànd ak man ñu dem asamaanu juróom ñaar la xewoon ca benn ba mooy xew ci yépp jibril bu fëggee malaaka yi ne ko kan la mu ne man la jibril ki nga àndal kan la ñu ne mu ne kii mooy muhammad yónni nañ ko ataka yónni nañ ko malaaka yi tagg ko sargal ko ubbil ko biñ ñëwee ña nga fekk Moussa alayhi salaam gannaaw ba Jibril romb ko ñu dem asamaanu juróom-ñaar kon juróom-benn bi lañ fekk Moussa juróom-ñaareel ba ñu fekk Ibrahim alayhi salaam yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na maa ngi ko fekk mu ngi jël daal di suunu ca la nga xam ni mooy baytul ma'mur baytul ma'mur benn kër la bu yàlla néeg bu yàlla tabax ca kaw asamaani juróom-ñaar comme ni mu sante woon ibrahima mu tabax ci kaw suuf noonu it la ko yàlla defee benn néeg ci kaw asamaani juróom-ñaar mu fekk fa ibrahima alayhi salaatu wassalaam gannaaw ba ibrahima dalal ko mu daal di koy romb ñu daal di dem ba ba fi nga xam ne moom la ñuy tuddee sidratul muntaha garab boobu nga xam ne dañ koy tuddee si déem rasul salallahu alayhi wa sallam gannaaw ba ko yàlla melalee ne ba mu yiiree si déem gën a ko yiir de ay bëtam jénguñu ay bëtam sajjuñu ay la ko yàlla xolloo xolloo ko nee na si déem gën a lu mu génne ci ay taar amul benn jaamu yàlla bu mën a melal taar yooyee lu bari ci borom xam-xam yi ñu ne di tax ñu tudd ko sidratul muntaha mooy mboole mu mbindaafam yi malaaka ku dul ñoom seen xam-xam foofu la yem la ca kaw loolu xam-xamu borom bi la rasul salallahu alayhi wa sallam nag dem na moom ba tiim fépp foo xam ne mbindaafam mas na faa yëg mbokk ci xaal boobee la ko suñu borom yàlla jox lii nga xam ne moo gën a màgg liñ koy defal ci kaw suuf muy li ñuy tuddee julli juróom suñu borom yàlla mi ngi tànn place bi gën a kawe jox ko ko loolu it muy wane ne noonu la julli googu kawe julli moo lay jokkale ak sa borom julli mooy lay yëkkati la nga xam ne mooy ay daraja suñu borom ne ko muhammad boo demee yàgg sa xeet day leen julli juróom fukki yoon ci bés bu nekk juróom fukki yoon ci bés bu nekk loolee yonent bi yàlla bi indi ko biñ ñëwee mu rombaat yonent yàlla Muusa Muusa ne ko waaw Muhammad sa borom lu mu la jox mu ne ko daf maa jox juróom fukki julli maag sama xeet mu ne ko mu mu ne ko ay Muhammad man maa la mujj ci ak yonent xam nga looy def demal ñaan sa borom wàññi ko sa xeet mënuñu loolu man mii bani Israil lañ ma joxoon gis nga nañ ko sàggane yonent bi sallallahu alayhi wa sallam delluwaat suñu borom yàlla wàññil ko ci juróom muy ñeent fukk ak juróom mu ñëwaat Moussa wax ko lam ko waxoon yonent bi delluwaat ba mu nekk fukki julli yonent yàlla Moussa na ko dé delluwaatal ba tey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam delluwaat suñu borom yàlla na ko waaw léegi wàññi naa ko ba muy juróomi julli léegi nag juróomi julli yi sa xeet buñ ko jullee danaa leen ko bindal juróom fukki julli loolu nekk mbir mu rëy mbokk julit suñu borom da daa bëggoon bés bu nekk ñu julli juróom fukki yoon loolu daal di nekk au moins trente minutes yu nekk jullit daa waroon a jóg julli ji waaye suñu borom moo yeppal ko waaye defal ñu xéewalam mooy juróomi julli yooyu ku ko respecté daal di bindal juróom fukki julli waaw gars yi ki yàlla bindal juróomi julli moom mu sàggane ko bu ko yàlla santoon juróom fukki julli moom naka lay def loolee kon suñu boroom yàlla subhanahu wa taala lim ñu defal nga la way boo jógee di julli fajar xamal na yaa ngi julli valeur fukki julli tisbaar noonu takusaan noonu ndax suñu borom yàlla lam ne julli gu nekk daan ko ful ba mu nekk la nga xam ne mooy fukki julli ca loolu it la yàlla di def ak ay jaamam ci heure boo xamee ne nii ah jaam bi def na tuyaaba dana ko ko fulal fukki yoon bu dee bàkkaara benn lay doon soo ko naroon def bàyyi ko ci yàlla tax sax yàlla bindal la ko far benn tuyaaba mbokk li it bokk na lu ñuy déggal mooy ndekete doomu aadama bi war nañuy laayante biir suñu diggante laayi biir bu yonent yàlla Muusa laayi biir suñu yonent moo ñu jural woyefal gii nekk suñu biir waaw mbokk loolu lu ñuy jàngal mooy ñun en tant que doomu julit suñu diggante képp koo xam ne jàpp ñu ne dana mën a laayi biir mbokkum julitam nga la waay ca nan ka mën a laayi biir laayu ko biir ci loole ca itamit doomu aadama bi tamit lépp loo xam ne nii yaa ngi koy ñaan ngir keneen loolu it xamal ni ak gàcce amu ca rus amu ca doomu aadama la muy am kersa mooy laaj jëm ci boppam amma boo gisee ku ñu war a dimbali ku ñu war a jàppale ku ñu war a xettali nga jóg dox ci loolu loolee dañ koy tudde shafaatan xasana ku ne war ci bàyyi xel ne doon loolu góor la wala jigéen looloo tax yonent yàlla Muusa waxul yonent yàlla Muhammad lii la yàlla sant doo ko man def na ko sa xeet duñ ko man li yonent bi alayhi salaam bi jaabante diggante borom bi ak Muusa yépp mooy ngir la nga xam ne mooy woyefal xeetam bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na it ci loolu mbokk lu ñu war a xam mooy yonent yàlla muhammad gis nga te xeeba dafa mujj wax ne Moussa fekk bi mu ne ko juróomi julli moo ci des mu ne ko waaw muhammad dellu ngir yàlla wàññiwaat ngir yërmaane bi mu am ci ñun mu ne ko dëgg-dëgg Moussa rus naa nag delluwaat sama borom te mbokk kersa mi ngi noonu yeneen ci yàlla bi nekkoon borom kersa waaye kersa du indi lu dul yiw loolu moo tax ba mbokk juróomi julli yooye nekk xéewal goo goo xam ni xéewalu àdduna la xéewalu àllaaxira la ay yéen mbokk jullit xalaat leen nag yéen tamit suñu borom yàlla loo xam ne da koo itteel bi muy wàcce zakat dafa yónni jibril koor jibril jihaad jibril lu mu mën a doon jibril demal wuy ji muhammad nga wax ko nangam ak nangam amma lii ñor ko mu ne jibril demal jëli li ma muhammad mu bënt asamaani juróom-ñaar teraanga yi yëpp mu defal ko ci kanamam yóbbu ko fu kenn fu kenn yeggul daal di farataal ci moom julli juróom ma ndax mbokk julit mënees naa amati xel benn waay yow nga sàggan ba am sàmba caam dagge fële ne la déet bàyyil julli loolu dina la ko gàddul da nga dem ajjana loolu mbokk ku nu ko bëgg a wax al ku na bëgg la alagaale nga la waay mbokk jullit it xam leen la gën a màgg ngeen gis seen njaboot gi di ko sàggane mooy nga gis njaboot buy sàggane julli la gën a màgg la leen seen borom sant ci seen njaboot mooy ngeen sant leen ñuy taxawal julli waxmur ahlaka bi salaati wastabir alayha laa nasaluka risqan nahnu narzuquk wal aqibatu lit taqwa suñu borom mu ne dee leen digal njaboot bu julli ca ngeen sax ci julli bu dee wërsëg laaju ma leen wërsëg wërsëg sama loxo lu nekk ca képp ku bëgg mujj bu rafet mi ngi koy jaare ci la nga xam ne mooy ak ragal yàlla ngan la way jullee ngoog taxaw leen ci ci di ko dégle ku leen di woo ci ñàkk julli daw leen ko loolee mbokk da ngay gis ne yàlla musul wàcc diine bu amul julli su ko defee kon loolu ñu mën ko dégg ci loolu bokk na it lu ñuy déggee mbokk mooy li nga xam ne mooy isra wal miraj te mooy yonent bi jóge kaw suuf bëtt asamaan ni juróom-ñaar yegg fu kon yeggul dem ca boroomam borom bi jox ko mu wàccaat fekk Moussa Moussa ne ko yéegaatal loolu day wan ni borom bi ñuy jaamu ma nga ca kaw asamaanam ya ca kaw kursiyam ba ca kaw arsh ba nga xam ne moo tiim kursi mbokk suñu borom ca kaw kaw lépp la nekk moytu leen woote yi bees yi tasaaroo Sénégal ñu naan leen yàlla ngi fépp ñu dem ba naan yàlla muy lépp loolee mbokk musiba la boo xam ne yahud yi li ñuy bon bon gëmuñu ko chrétiens yi li ñuy doon ñu doy waar doy waar gëmuñu ko su ko defee ngeen xam ne suñu borom yàlla jalla wa ala lépp loo gis lépp loo yëg asamaan yi juróom-ñaar ba kursi ba arsh loolu lépp ay mbindaa fan lañu amma borom bi jalla wa ala ma nga ca kaw loolu lépp daraam nekkul ci jaam yi daray jaam yi nekkul ci moom jalla wa ala loolee mbokk la nit war a gëm mbokk tukk bi mon bu màgg boobee rasul sallallahu alayhi wa sallam yàlla won na ko fa ay kawteef yu bari yoo xam ne xajul ci la nga xam ne mooy ab xutba waaye bokk nañ ca rek benn étape boo xam ne nii nee na ànd naa jibril bu mujj benn xet bu neex daal di gilli ma ne waaw jibril ah xet gi moom neex na di lii mooy lan mu ne ko lii day mooy xetu maachitatu ibnati firawn mooy jigéen ji nga xam ne moo doon létt ak di defar karawu doomu firawna mu ne ko waaw luy mbiram jibril na ko kii day moom bis lay nekk di létt doomu firawna peñe bi wadd mu daal di ne ah subhanallah wax bismillah doomu firawna ji sikki na ko waaw allah bi ngay wax sama baay gi ci jublu wala mu ne ko déedéet sama borom ak sa boromu bàyyi laa ci jublu ndaw si jóg mer dugg ci pale bi dem wax ko baay bi ne ko kii day mi ngi jaamu beneen buur bu dul yow firawna daa di koy woolu daa di na ko da ngay jaamu beneen buur bu dul man mu ne ko waaw sama borom di sa borom mooy yàlla jalla waala moo tàngalal ko kabdir gu yaatu goo xam ne ni xanjar la ñu baxal ko ba muy bax mu ne ko nag soo delliwul ci diine day danaa la taal fii baxal la yàgg say doom mu ne ko ah dara darulu ma ma dellu ci diine mu jël doomam yem yoroon yépp di sànni par benn ndaw siy gis sànni par benn ndaw siy gis ku dugg ci biir rek nes wuti sa yax teqali ko sa der ba mu dese benn xale bu ndaw bu mu doon nampal léegi ndaw si xaw a hésité ñagg-ñagg ngir xale bi waaye xale bi daal di wax ak moom ne ko yaay dee ci dëgg moo gën dund ci ay neen ca la ànd ak doomam ja firawna dugal ko ca kaddir googe ñu bokk leen baxal bokk leen rey mbokk loolu suñu borom yàlla ca barzaq lii la ko fayee muy bind boo xam ne nii génne nañ ko ci kawtiif yu bari yëfa yonent bi gis ngiree dafa dal ci jigéen ay yéen góor ñi su dee jigéen day la diineem jaral nekk ci pale firawna nga xam ne bu dama woon bannee xam teraanga bu ne mën na ko ko defal waaye diineem jaral ko mu àtt na sacrifier bakkanam ngir diineem ndax ca la yem déedéet sacrifier njabootam ñu rey ko ci kanamam ngiree mu sauvé diineem nga la waay yéen góor ñi lay wax amma jigéen ñi ñi ngi noonu ku nekk ci ñun na wax xam ne la nga xam ne mooy la gën a rëy lu mu am la gën a rëy lu mu war a sàmm mooy diineem sa diine bu la ko ay menace taxabay du kaso du rey du daggate sa diine bu la ko intérêt àdduna taxabay du nguur du alal du lum mën a doon ndax lum mën a doon mbokk julit day jeex am naa xoolal soxna si ba ko yàlla subhanahu wa taala dogalee mu firawna ba mu faatoog léegi ëpp na trois mille ans ba tey da ngay gis xéewalam yaa ngi koy fekk ca la koy xaar ëllëg ci àddina moo gën a kawe lii mbokk di mbir moo xam ne ah góor ak jigéen ñun ñëpp bu ñu bàyyi ci xel mbokk isra ak miraj bi mu amee bokk na suñu yonente salallahu alayhi wa sallam bi mu dellusee kaawtiis dem na ca kaaba ga abu jahal saay saay bu mag ba fekk ko fa waaw muhammad lu beesati mu ne ko biig day jóge naa fii dem Palestine sama borom yéegee na ma kaw asamaan mu ne ko affaire asamaan moom waxuñu ko waaye dama nga ne jóge nga fii dem Palestine est ce que suba woo waa Makka da nga ko répété seen kanam mu ne ko ah kay mu daal di yuuxu waa Makka ñëw mu ne nag ndof gën doon wax nag tey moom feeñ na kaay leen dégg li Muhammad wax ndax nee na jóge na fi dem makka dem Palestine nit di siwaat gaa yi na ko waaw yow mos demoo woon jàkka Palestine nu mu mel suñu borom yàlla yëkkatil ko dëkk ba mu détaillé leen ko gën jaa màggi détail loolu taxul ñoom ñu gëm waaye bokk na la ci gën a am solo mooy abubakarin sadiq bi am ñu dawee dem ci moom na ko nag tey ngay génn ci sa waaj mu ne waaw lu xew mu ne nee ne bii dafay jógee makka dem Palestine dellu si waat mu ne waaw yéen a ñàkk xam man li ma ko gëme moo gën a garaaw loolu man maa ngi gëm ne moom mi ngi jokk ak borom bi malaaka yaa ngi wàcc ci moom dem Palestine gi koy yéemu ma waaye mbokk da ngay xool ñi weddi woon kumpa démb nañu alko xoolal ñoo ñu weddi woon suñu yenente sallallahu alayhi wa sallam ku leen waxoon ne jamono ngi ñëw avion yii nga xam ne yàlla may nañu ko am na ci avion yoo xam ne Makka ak Madina mën nañ ko def mooy de 30 minutes li ñuy tuddalee supersonique yi nekk ci armée yi bu ñu jóge woon Makka di daw ay 1500 kilomètres heure 30 minutes bu ñu ko def diggante Makka ak Palestine une heure de temps mën nañ dem dellu si waat mën a yabaale ay téeméeri nit ku leen ko waxoon ndax dañ ko gëm déedéet et pourtant mi ngi nekk réalité bu ñuy dund tey looloo tax mbokkam yeneen ci yi ñu indil kumpa kumpa dafa nekk ay mbir yoo xam ne soos yi ñu yàlla may yëg-yëg yi mënul yegg foofu la ca mën a am rek mooy nga gëm ko nga xam ne yeneen ci lu mu wax rek dëgg la doonte ne ne mbokk doon na xéewal ñuy fàttaliku isra wal miraj xéewal gën a mi ngi nekk ci xew-xew ba fa am ñu koy màggal màggal ga mooy lan mooy ngalawaay ñu fonk julli doomu aadama ji sa diine mi ngi rafete ni sa julli rafete itte bi nga jox sa julli itte bu toll noonu rek sa diine di toll ja na nga xam ne noonu ngay toroxloo sa julli xaal boobu rek nga am ci sa kanamu borom loolu mbokk mi ngi noonu donte ne ñaareelu wàll ci xutba bi liñ ci gënoon a yóbbu tayit mooy nga la waay ñu xam ne masjidul aqsa boobu nga xam ne suñu borom yàlla bi mu jëlee yonent bi màkka yóbbu ko kaw asamaan da ko yóbbu aqsa mooy masjidul aqsa boobu mooy ñetteelu jàkkee jullit ñi looloo tax yonent bi alei salatu wasalaam ba mu fi jógee faatuwul teguñu ci atten ay dix ans omar ibnul xataab ñëw ubbi masjidul aqsa fekk ay yahud ñoo fa nekkoon ak seen caay-caay loolee demoon na ba ay siècle jullit ñi ñoo ko yor ba ci jamono yi passé la yahud yu bon yi Amérique ngémb leen ak Angleterre ñu ñëw jëlaat dëkk boobee noor suñu mbokk jullit yëpp nekk di tere ndaw ñi ñuy julli ji ca jàkka ja di leen bombardé guddi ak bëccëg loolee mbokk da ngay gis ne bari woon na at yim paa yi yi passé waaye rawatina bi ñu yàlla nattoo kii nga xam ne mooy jiite Amérique kooku moom dafa gën a ñangal mbir yi gën a jaxase mbir yi loolu nag ab jullit la nga xamee ne nii moom la ca man mooy su doon kattan amoon na dem taxaw suñu mbokk jullit ñooñee la ñuy daj ci coono ñu ànd koog ñoom daj fa lillahi alhamd waaye mbokk loolu lu jafe la kon la ca des rek mooy buñ leen fàtte ci ay ñaan bu ñuy fàtte waa aqsa yàlla subhanahu wa taala may leen xolu muñ bu ñu fàtte waa aqsa ña ci yahud yi rey yàlla def leen min shuhada bu ñu fàtte it waa aqsa ñañ cay blessé yàlla subhanahu wa taala saafara leen gannaaw bi it ñu xam ne mbokk diine lay mooy diine lislaam suñu borom yàlla bi mu yemelee yonent bi alayhi salaatu wasalaam ca isra ak miraj ba mu dellu see la ko dajala waat wàcce yonent yooyu ko teere woon yépp ak mboole mi yonent ñu nekk mbooloo mu mag mu jiite leen ca masjidul aqsa loolu it muy wane ne mboole mi yonent ak lu leen yàlla mas a yónni ci diine diine yooyu suñu borom yàlla far na ko diine bi valable ba ila yawmi diin bi sax ba ila yawmi diin mooy diine lislaam képp koo xam ne yahud nga nasaraan nga nga daa di dégg na yàlla yónni na yonent yàlla muhammad ci lislaam ba pare nga lànk bañ koo gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na safara mooy sa wàccuwaay yonent boobu nee na xatta Muusa alayhi salaam bu ñëwaatoon ci kaw suuf du doon kuy topp lu dul la nga xamee ne mooy sama gannaaw loolu it moo tax ba incha allah bu ñu yàlla jàppalee ci xutba bii di ñëw lu jëm ci wàllu isa dana wàcc yowmal qiyaama moom ci boppam fekk yàlla di nelawal ci kaw asamaan ya bu ñëwee day topp ci gannaaw diine muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon muy wane seen diine mooy diine dëgg yéen a war a woo adduna bi nan ngeen leen di woowee ci seen wax waaye ci seen comportement nga la way xamal ne doomu julit comportement bu rafet bi ngay am ci sa doxiin ci say jëflante ci sa jaamu yàlla loolee mooy aar sa diine mooy tax keneen xel leen ko mën caa dugg amma bu dee diine ji daa yem ci ay lammiñ loole da ngay gis mbokk yéefar yi duñ ko xemmem loolu di mbir moo xam ne ku nekk ci ñun war na caa bàyyi xel gannaaw loolu itamit mooy ñu xam ne xew-xew bii de mbokk julit amul benn dat boo xam ne nii doomu aad aadama bii borom xam-xam dana ca dogu na dat bi la woon amul loolu it mooy wone ne bis bu ñu koy jagleel di ko màggal amul allahuma lu dul ne yëg ne moom mas naa am yëg teraanga ba fa jóge wareefu képp kenn la ci ñun ñu ngi ñaan suñu borom yàlla jalla wa ala ñu teraloon ab yeneen tam ci teraanga bu màgg boobee yàlla nañu yàlla boole ci teraanga joojee adduna ak alaxira mooy nar a yëkkati ab yeneen tam ci teraanga yi gën a kawe ca firdawsil ala yàlla na yàlla boole ñoom ñay dëkk ak moom firdawsil ala yàlla na yàlla wàcceel ñu jàmm ci suñu réew yàlla na wàcce jàmm ci mboolem réewu julit yàlla na yàlla xettali bépp julit bu nekk ci tolof tolof ci kaw suuf yàlla yàlla yërëm mboolem ña nga xam ne dañoo nekk ci biir bàmmeel ya ca yàlla defaral ñu muñ gu rafet may ñu la nga xam ne mooy ngërëmam أدنى الآخرة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين